laay automobile kenn nekkatu fii ci yor oto yu nga xam ne da koy yëkkati maal bi di dal sa ndaal bopp léegi loolu léegi nii la da nga naan ko nii mu xaar la ci kaw ca kaw <laughs> ca kaw ma ñëw war ma attention dafa naan automobile day am ay pain dama lay tëj de. dama koy tëj de. waaye jàmmalaay atam mu na. nga xam na ni Ndiaye. jàmmalaay. kooku day kenn. nee naa la man fekkee naa rams bu ñu jël yóbbu ko Europe ñëw amuñ ci pexe. wër entreprise Sénégal amuñ ci pexe. bañ ko indee ci jàmmalaay. automobile non deux jours. deux jours deux jours. Range Rover deux jours sa indi courant yi. taal oto yi kon jàmbale automobile amul morom ci biir réew. est-ce que du ma ko may njug ba ngam sa yóbbu ma. Mercedes. Mercedes. naka ku ne xam na ne ah. ngam see ah. ngam see da ngaa yéex. loolu lii. dëgg la dëgg la